di leen jox tamit ziyaar ak nuyoo ak ñaanuk sëriñ bi di jottali ngërëm ak cant ci mbokk taalibe yépp ci xew-xewu diine bi nga xam ne ñun ñépp ko àndandoo ci ndigalul suñu boroom ba weesu ko di leen ci jottali cantuk sëriñ bi moo am nag ak yóbbante boo xam ne ci moom la jóge mu jëm ci mbokk jullit yépp ak mbokku taalibe yi mu ni ma woon bu ñu ñëwee bu ñu laataa julli ak jombul sax dinañ def yeneen i communiqué ci rajo yi ngir mu gën a yaatu mu jottali ko tamit Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ni moo yor kàddoom léegi la ma ko gaaralaat muy tolluwaayu jamono ni nga xam ni moom la àddina bi toll ak yëngu-yëngu yi ci xew yépp ak réew mi nga xam ni mooy réewum senegal te ñu bokk ko te mu ni muy réew moo xam ni mi réewu li ci ëpp réewum baykat la te nawet bi xaw a yeex ci gox yu baree baree bari mu ni ma nag nañu wax mbokk jullit yépp rawatina mbokk taalibe yi muy jox ndigal ñu dellu ci suñu boroom tuubal ko tuubal gu wér gu yaatu te it baloon tey àq ginnaaw loolu ñaan yàlla mi nga xam ni mooy boroom kàttan di boroom ndimbal mu dimbali ñu ca kàttanam ak ndimmalam woyofal àddina bi ci fànn yu bari rawete na nawet bi nga xam ni dafa yéex ci gox yu bari mu ni ma woon dimanche ji di ñëw dibéer buñ ci demee ba ginnaaw tisbaar ginnaaw ginnaaw tisbaar fii ci masalikul jinaan ak bépp box boo xam ni dañ koy tudde sëriñ bi ak bépp daara bu ne ci réew mi ak bu nekk ci gox yee goxaat yépp ñuy jàng alxuraan di tamit sikar di tudd turu yàlla yi ci ku ne nam ko mane di jàng xasida ku nekkit na mu ko mane bu ñu koy def ba tàkkusaan ñu dellu ba ca ëllëg sa di ko def ba dibéer ji dellusi bu dibéer ji dellusee ca altine ja nee na nañ ko yendoo buñ ko yendoo lu waay man ci sàkk sarax ak xéewal mu def ko fa mu féete rawatina barab yi nga xam ne yii mooy barab sëriñ bi ak daara yi bu ñu ko xëyee ci njàngum alxuraan ak xasida ak zikkër bu ñu amee lu ñu am ci xéewal dimbali ñi nga xam ni dañ ko yittewoo mooy néew ju doole yi bu ñu ko yendoo ba takkusaan nee na ñu ñaan nee na ñaan gi sax ci moom lay jóge moo koy tëjal boppam moo ma ko wax bii ci waxtu ci 9h la ma woowal boppam tey léegi bi may ñëw la ma Cheikh Mouhamadul Bachir wax ni loolu naa leen ko jottali jottali ko mboolem jullit yépp rawatina mboolee taalibi sëñ Tuubaa yi maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp day ñaan lépp luñ ci def yàlla na ko yàlla nangu yàlla mi nga xam ne mooy borom dimbal ak borom kàttan yàlla na ñu dimbali yàlla na sëriñ bi yàgg fi te wér yàgg ñoo jiite ci liggéeyub sëriñ Touba yi nga xam ne bii moo nekk ca bopp ba te ñu ànd koog moom ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.